génn góor di ca jàng lenn ci ay aaya ci suratul kahfi defe naa mi ngi jàng li tàmbalee ci uh, laaye ñeen fukk ak juróom ba laaye ñeen fukk ak ñeent wala juróom fukk sànq bi ñu waaja julli tàkkusaan mel na mbokk ci mbooloo mi sàkku ni moom de gis na vidéo bi mu neex ko lool waaye la ko ca metti tuuti mooy xamut la muy wax mu doon sàkku nag bëgg a xam la waaja di wax la muy jàng lu mu doon léegi nag looloo sabab ñu ne woon kon bu ñu defee bu ñu julee tàkkusaan ba noppi ñu def suñu fàttali ci loolu ci laaya yooyu laay mi ngi tàmbalee ci laay ñeent fukk ak juróom comme ni leen ko waxee fa borom bi tabaraka wa taala di waxee naan واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا laaya ju njëkk ji borom bi tabaraka wa taala mi ngi misaal dunduk doomu aadama gi fii ci adduna yàlla nga koy misaal di wax ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam ni ko wadrib lahum nee ko wadrib na door dóor yow muhammad lahum ñeel leen ñeel saxeet wi na leen dooral masalal xayaati dunya misaalum dunduk adduna gi mu ne ko na nga misaal sa xeet wi na leen tegal misaaluk dunduk adduna gi nan la mel yàlla mu ne misaal mi nim mel mooy kamaa in dafa mel ne ka am ndox ndox moo xam ni anzalnaahu wàcce nañu ko min assamaa'i mu jóge ci kaw asamaan faxtalata mu jaxasoo bihi ca moom nabaatul ardi gàncaxug suuf gi maanaam yàlla mu ni misaalug dunduk adduna gii fii ci adduna ñu doomu aadama yépp ci bokk yam yàlla mu ni daa mel ne ke dañoo wàcce am ndox mu jóge ci kaw asamaan wàcc dugg ci biir suuf jaxasoo gàncax gi bu ndox bi duggee jaxasoo gàncax gi da ngay gis gàncax gi daal di sax maanaam bis bu tawee rek benn fan walla ñaari fan nga gis suuf si commencé sax am ñax mu rafet mu vert boo demee ci àll bi da gis mu taaru lool naat lool garab yi yépp rafetaat lool ñax mi bari ci àll bi lool ci vert ga muy gën di taw muy gën di naat di gën di naat di gën di naat day dem ba jëmmi jamono ñax mu verte mu naat moomee day dem ba commencé di lax commencé jaune dem ba commencé waw ngelaw li ñëw ëppaat ko mu daal di dem mu jeex takk boo jëloon sa brato sax bëgg a mboob boo ñoddee rek ñax mi dalay topp ndax lax gamu lax ak waw ga mu noonu la doomu aadama mel ci adduna bi moo tax yàlla bu ne suñ demee ba àgg ci loolu fa asbaxa nee na dafay mujj nekk ñax moomee day mujj nekk hashiman nekk lu wow tazruhu riyaaxu ngelaw li di ko ëpp nag ngelaw li di ko ëpp muy naaw dem yoonam jeex na tàkk yàlla nag mu ni wa kaana yàlla day nekk na koo xam ni mu ko tadiran aji am kattan la ala kulli shay'in ci lépp lu mën a doon yàlla ko am kattan la ci loolu maanaam ci noor bi dangay gis àll bi dafay dafay weex tàll lépp di suuf xanaa ay ngeer ay garab waaye bu tawee benn yoon rek boo xëyee ñaari fan dangay gis suuf si wert lépp am ñax lay doon lan moo ko génnee ndox ma bu demee ba mu yàgg dangay gis mu commencé lax wow ngelaw li ñu ëf ko rek lépp jeexaat mu mel na melaatoon nii la doomu aadama mel ci adduna nii la doomu aadama mel ci adduna xoolal góor bu sëyee ak soxnaam toqal ca ndoxu mànni yu kamaa in <laughs> allahu akbar kamaa in toqal ca ndoxu mànni yu nga gis soxna sa biir ba commencé màgg di màgg di màgg diirub juróom-ñeenti weer ñu ne ndaw sax am na gone gone gu tooy xip liir bu ndaw di jooy gone gay màgg di mën a raam di mën a dox dem ba nekk waxambaane dem ba mu yàgg ñu ne mooy takk soxna kat bu dee góor la wala ñu ne moom la ñu takk bu dee jigéen la commencé nekk waxambaane wu dëgër fu ko neex mën a dem dem daw ak a dikk dang dangi fu ne mu dugg fa lépp moo koy defal boppam day dem ba mu yàgg rek ñu ne ko ah kii kat fu mu dem léegi dañ ko faa yóbbu ndax amatul kàttan xàmmeetul dara naax na commencé nga jëm mag ba mu yàgg rek dañu lay gàddu teg la ci barab ñu ne ana sang kat ba kaay sang sang ñu ne kaay leen jàpp teg ci kees gi jàpp leen teg ci kanamu mbooloo mi nit ñu ñëw commencé seede ku baax la woon wala ku nangam sangam ana imaam kaay jullee jullee nañ ba noppi kaay leen gàddu fu ñu jëm armeel ya fu ñu koy teg te suuf fekk am na pax mu fa nekk suñ defee la ñu def ba noppi jël leen dugal ci pax mi léegi nag nu ñu def suul leen léegi nag nañu ñibbi lu fa des moom ca biir pax ma ak lan ak jëfam allahu akbar lii mooy dunduk doomu aadama gat gat mbokkum jullit lii mooy dunduk doomu aadama gi yàlla borom bi tabaraka wa taala mi ngi koy misaal ci suratul xadiidi yàlla mu ni kama kamasali gaythin ajaba alkuffaara nabaatuhu bi idni rabbi subhaanallah kamasali gaythin ajaba alkuffaara nabaatuhu summa yahiiju fa taraahu musfarran nee na dafa mel ne ab taw bu ñëw rek saxal gàncax gi ba ñëpp gis gàncax gi naat lool léegi nag ngelaw la ñu ëpp ko rek mu daal di verte wow koŋ summa yakunu xutaama mu daal di nekk lu wow koŋ mu daal di naaw yàlla nag mu ne wa fil axirati adabun shadid bu yowmal qiyaamee nag am na mbugal mu metti lool ci képp ku weddi woon borom bi tabaraka wa taala waaye nag wa magfiratun min allah wa ridwan am na njëggal ak yërmande gu yaatu ci képp ku ragaloon yàlla doon jëf-jëf ju baax yàlla mu ne wama alxayaatu dunya illa mata gurur nee na dund adduna gii dund guy ware képp kon jëf ju baax rek fi am solo kon mbokkum jullit loolu mooy misaalub adduna mbokk mi ñu dem ci laayab ñaareel bi yàlla teg ca muni waaw yàlla teg ca mu ni almaalu walbanuuna ziinatul xayaati dunya yàlla mu ne almaalu seen alal ju bari jii seen alal ju bari jii muy oto kër yi terrain yi ngeen am ak nu alal ja mel moo xam muy ay bato muy avion muy matériel lu mu mën a doon lu nekk rek nee seen alal ju bari ji hmm. wal banuuna ak seen njaboot gu bari gii moo xam seen doomi ay ministre lañ ay directeur de société lañ ay docteur lañ ay jàngalekat lañ wala ay baykat lañ wala lu mën a doon ci adduna ak luñ mën a toll njaboot ga yàlla mu ni loolu day na ngeen xam ni ziinatul xayaati dunya nee na taar taaru adduna képp la nag su fekkee def leen ci la neex borom bi tabaraka wa taala su fekkee def leen lu neex yàlla bokkum jullit sa alal yàlla nee na lu mu bari bari bari bari bari bari bari bari adduna ak li ci biiram soo ko amoon bi foo ci lu neex yàlla nee na taaruk adduna képp la amul njariñ say doom lu ñu bari bari bari bari lu ñu am ci adduna ak lu ñu man lu ñu bari bari pexe tegoo leen ci siraatal mustaqim tegoo leen ci siraatal mustaqim nee na ziinatul xayaati dunia nee na taaruk adduna képp la dafay jeex tàkk amul benn njariñ xanaa ñu def ci lu baax moo tax yàlla mu ne wama amwaalukum nee na seen alal ji ak seen doom yu bari yii taxul ngeen jege ma man yàlla de taxul ngeen jege ma man yàlla de illa man aamana wa amila saalihan lu dul ñi ca gëm yàlla ragal ca yàlla du def jëf ju baax ah ñoom day su boobaa danaa leen nangul danaa leen jege yàlla mu ni fa ulaika lahum jazaau difi bi ma amilu ñoom day danañu am pay gu bari lool ca lañ doon jëf ci lu baax la moo xam alal ji bari na waaye nag nga ciy jëfal borom bi tabaraka wa taala doom yi bari nañ waaye nga teg leen ci siraatal mustaqim yàlla mu ni ñooñu de am nañu pay gu fulandiku lool adduna ak alaxira waaye yàlla mu ni wahum fil gurufaati aaminoon te ñoom bu yowmal qiyaama danañu mucc ci mbugalum sawara yàlla noonu yàlla boole ci ñu baax ñi ci ragal yàlla ji yàlla mu ni kon seen alal ju bari ji seen doom yu bari ak nu ñu mën a mel nee na taarug képp la amul njariñ ci yàlla su fekkee def leen ci lu baax yàlla nag mu ni wal baaqiyaatu saalihaatu nena na li nga xam ne moo fi des te doon jëf ju baax xayrun moo gën inda rabbika ca sa borom sawaaban ci pay waaye it wa moo gën amalan yaakaar ci mébét ci looy xaar ëllëg yawmal qiyaam ci kanamu borom bi kon jëf ju baax ji ngeen di jëf muy sax ci adduna moo xam dangay ngay tabaxi jàkka tabaxi daara wuti kaamil yóbbu ca daara ja dangay ngay ngir nit ña dangay jàngale xam-xam da ngay yaatal xam-xam même boo amul dara dara dara loo def sax jëlal xam-xam tasaare keneen ko xamul jëlal xam-xam jottali ko xamul jëlal jëf ju baax jottali ko xamul addaalu ala alxayri ka failihi jëf ju baax nga tegtale ko ba sa mbokk def ko yàgg moom yéen a ca yem tuyaaba kon jëf ju baax jooju ngeen di jëf muy sax fii ci adduna nee na moo gën ci borom bi tabaraka wa taala ci pay te moo gën ci yéen ci lu ngeen di yaakaar ëllëg ci kanamu sunu borom tabaraka wa taala wax nañ ni baaqiyaatu saalihaat mooy tudd yàlla gu bari subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar loolu moo gën lépp lu ngeen mën a am fii ci adduna fuqara yi demoon nañ ci yonente bi alayhi salaatu salaam ni ko dahaba ahlu dusuuri bil ujur nee na ko ñu ne borom alal yi dem nañ yóbbu nañu alal ja ña ngay def lu baax ca alal ja di ca saraxe di ca tabaxi jàkka di ca def aw yiw ba noppi ñun li ñuy def ñu ngi koy def ñu ngi julli ñu ngi woor ñu ngi aj ñu ngi def yooyu yëpp te ñun mënuñu ko amuñu alal yonent ba alayhi salaatu wasalaam ni leen maa ngi leen di jox lii ngeen jàpp na ngeen xam ne bépp subhanallah bu ngeen wax sarax la ci yéen bépp alhamdulillah sarax la ci yéen bépp allahu akbar sarax la ci yéen bépp laa ilaha illa sarax la ci yéen demel ngeen jàpp ja kon yu mel nii day dana tax jaamu borom bi tabaraka wa taala am yiw yaatu adduna ak alaxira imaam ahmad ibnu hanbal bokk ci jamonoom mooy ki gënoon dégg sunna ci jamonoom benn bis dafa dem cib dëkk ba guddi fekk ko fa mu tumuranke bu bëgg fu fanaan dem ca jàkka ja ne dafay fanaan benn waaye fekk ko fa xay na noddukat bala wala kum mën a doon ci waa jàkka ja daal di koy dàq ni ko doo fanaan ni ko dimbale ma damaa tumuranke ni ko acca génnal ci bit dàq ko diri ko ba ca ba ca ba ca defarkatu mburu ba mu tëral ko foofu defarkatu mburu ba ni ko ah kon mën ngaa tëdd fii dalal ko foofu continuer dem defar mburoom waaye nag imam ahmed nee na mi ngi gis defarkatu mburu mi mburu mum dugal rek ni bismillah yenn saa yi mu ne subhanallah bismillah subhanallah di tudd yàlla rek di tudd yàlla ba fajar mu ne ko yow su tudd yàlla gu bari gii moom am na solo di noo def ba am lii lépp mu ne ko dama koo jéemantu yaa ngi dégg de ko dama koo jéemantu di ko tàmmal samaw lamiñ ba yàlla may ma ma tàmm ko nag lépp lu may def damay tudd yàlla imaam ahmad ni ko loo ci am mu ne ko day seetlu naa ni lu ma ñaan yàlla suñu borom tabaaraka wa taala dina dina ma ko nangul moom Ahmad ni ko waaw waaw tudd yàlla day loolu lay jariñ dafa katu mburu ba ni ko lenn rek la ma suñ borom mayagul mooy dama bëgg a gis imaam Ahmad boroom xam-xam bu rëy ba ca dëkk sangam ni ko imaam Ahmad moo mu nga bëgg a gis day mooy ka waaja ca jàkka ja diri andil la ko ba ci sa defar defarukaayu mburu bii maa ngi nii toog koo ko sant yàlla borom kon tudd yàlla mbokkum jullit dana def ci nit kilo loo xam ni mën na tax lu mu ñaan suñu borom tabaraka wa taala yàlla may ko ko yàlla mu ni alaa bi dikrillahi tatma'innul qulub kon jëf ju baax mooy des ci àdduna mooy jariñ waaye alal bari bari bari bari te defloo ci yàlla pertanga la dunia ak axira waaye lu mu néew néew néew wallahi alazim ki yor milliard def ko ci caaxaan ni maa leen ko may ki am benn téeméer def ko ci jàkka ja ngir yàlla téeméer bi moo ko ëpp fay ca yàlla xayrun inda rabbika sawaban wa xayrun amala waaye kañ lay jariñ kañ lañ koy xam yàlla mu ne was wa yow ma danga nga fàttaliku bés ba nga xam ne nu sayiru danañu dox dox doxloo aljibaala montagne yi danañu ko buddi danañu ko sempi ni ko aca doxal dem montagne yi di waaxu di dem yàlla mu ne wa tara gis keroog al arda suuf si baarizatan muy lu lu feeñ lu talliku ba talli ñareet ba talli ñareet montagne yi yowmal qiyaam yàlla day buddi lépp ruyal ko doxal ko muy dem mu tas ko yàlla mu ne wa suyyiratil jibaalu saraban nee na ñu doxloo montagne yi ak dox ruyal ko yàlla mu ne wa takunul jibaalu kal ihnin manfuush nee na da da ngay gis ñu ruyal montagne yi mokkal ko ba mel ne koto bu nooy nepp noonu la montagne yi di mel yàlla mu ne wa yasaluunaka an il jibaali fa qul yansifuha rabbi nasfa danañu la laaj montagne yi nu ko suñu def mu ne ko neel yàlla dana ko buddi mokkal ko ba mokk ko mu naaw mu dem noonu la montagne yi nag suuf si day tàlli ñareet dara dootul xat ay leer nañ doo gis lu ab jànj doo gis lu mel ne que pax doo gis lu xóot doo gis lu kawe lépp léppay tàlli ñareet comme li nga gis jàkk ji ni mel ni talli ñu lal tappi lépp leer ngay gis fépp ci jàkk ji noonu ngay gisee suuf si talli ku ñareet yàlla mu ni laa tara fiha iwajan wala amta yàlla mu ni doo gis fenn fu dëng wala fu xogge wala fu xóot léppay talli ku ñareet noonu la bis yowmal qiyaama ci di mel allahu akbar yàlla nag mu ni wa xacharnaahum keroog ñu dajale leen ñoom ñépp maanaam mboolem ñu yàlla bindoon ñu njëkk ñaak ñu mujj ñu ñépp borom bi tabaraka wa taala tàng leen dajale leen ñoom ñépp yàlla mu ni falam nu gaadir keroog kenn du manki minhum ci ñoom ahadan kenn nee kenn kenn kenn du absente ñëppay teew keroog bu yàlla di pang jaam ñi ñëpp taxaw ca jataay ba borom bi tabaraka wa taala war a atte la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim ñëppay teew keroog wa xasharnaahum falam nugaadir minhum ahadan yàlla mu ni keroog wa maa hum anha bi gaaibin nee na bés la boo xam ne kenn du absenté ñëppay teew keroog yàlla waxaat na ci alquran mu ni qul inna al awalina wal la majmuuna ila miqaati yawmi maalum mu ni ko waxal ni leen ña ma bindoon ña njëkk ña ak ñu mujj ña ñépp lay dajale ci barab atte leen kenn ku ci nekk la nga doon jëf fii ci adduna fii ci adduna yàlla mu ñu nag su boobaa wa uribu ma daat leeni gurgural ma gaaral leen ala rabbika ñu jëm ca sa borom fan def gën a sàppe yàlla mu ñu ma gurgur leen boole leen def leen ay sàppe sàppe ñu ànd malaakay dem di wuy ji seen borom tabaraka wa taala ñoom ñëpp yàlla nag mu ni laqad jitumuunaa wallahi dikkal ngeen ñu dey kamaa xalaqnaakum comme nañu leen bindee woon awwala marratin ci njëlbeenu njëlbeen ka na ma leen bindee woon ngeen dikkee ko ci adduna noonu ngeen di dikkee waat ci man maanaam bu ñu dekki bu ñuy dekki di wuy ji suñu borom kenn du sol mbubb du ñu sol tubay kenn du sol mbaxana kenn du sol dàll yaramu neen la ñépp di def noonu la ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam waxee yuxcharu nnaasu yowma alqiyaamati xufaatan uraatan xurlan nee na danañu pang doomu aadama yi keroog yowma alqiyaam duñ sol mbubu duñ sol dàll duñ sol mbaxana duñ sol dara duñ sol tubay yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na sax même la yàlla jëloo maanaam la la la leen jëloon ci ci ci góor ñi day dellu siwaat masalan Mm, euh, ñi nga xam ne dañoo jaar ci jongo lañ jëloon ci ñoom dafay dellu siwaat ci ñoom maanaam la ñu wàcce woon ci adduna lañuy ñuy wuyu seen borom tabaraka wa taala yaa aïchata ni ko yonent bi alayhi salaatu waaw góor ñeek jigéen ñëpp di xoolante yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni ko keroog bés ba dana rëy rëyaay goo xam ni kenn du tala xool kii góor laam jigéen la ku ci nekk sa bopp dong ngay tal la ilaha illa yàlla mu ne laqad jitumuunaa dikkal ngeen ñu kamaa xalaqnaakum comme nañu leen bindee woon awwala marratin ci njëlbeenu njëlbeen ka ah, yàlla mu ne nag yéen yéefar yi ah bal fi nekk day zaamtum da ngeen na foogoon ni an lan najaala du ñu def mukk lakum ñe leen mawidan bés bii yéen yéefar yi da ngeen a foogoon ni rendez-vous du ñëw tey ah mu ngi nii day yéen a ngi nii taxaw kat seen alal ca àdduna la ngeen te doon caaxaan ah foog ni du ngeen ñëw yéen ngi nii kat seen doom yi lu leen neexoon ngeen def yaakaar ni bés bi du ñëw ah yéen ngeen di taxaw day yéen ñi weddi woon dekk yéen a ngi ni taxaw day allan najala lakum yàlla mu ñu tey dikk na waaw léegi lu des yàlla mu ni nag wa wudia alkitaabu fa tara almujrimina mushfiqina mimma fii yàlla mu ni wa ñu daal di teg alkitaabu téere ya ñu tàllal téere yi kenn ku ci nekk la nga doon jëf yaa yaa koy jàngal sa bopp diw sab téere ngi la doon jëf lépp ngi ni ci àdduna diw sab téere ngi la doon jëf lépp ngi ni ci àdduna diw la doon jëf a ngi ni ci àdduna lépp ngi nii dara du ci ëpp du ci manqué lépp ngi nii su ko defee ne kenn ku ci nekk jël téereem ñu baax ña ñu bon ña góor ña jigéen ña ñépp jël seen téere su boobaa nag yàlla mu ni fataraa nga daal di gis nag al mujrimina kàccoor ya mushfiqiina ñuy tiit mimma fiihi la nekk ca téere ya ñu daal di tiit la nekk ci teere ya parce que ñoo ko jëf te lañ jëf dara baaxut ci wa yaquluuna ñu daal di wax ne nag yaa waylatanaa ay torox nañ mooy kàccor ñu wa yaa waylatanaa ay waay ñun torox nañ ay waay ñun nañ di maa li haada alkitaabi lan mooy lii lan moo nekk ci téere bi téere bi day laa yugaadiru ñooy wax de ne laa yugaadiru mankiwul mankiwul saxiiratan lu tuuti luñ mas a def wala kabiratan du caageen lu rëy lépp luñ def ndekete mi ngi ci téere bi ay way luy lii allahu akbar yenn saa yi nga wax nit nga ne ko sëñ bi li ngay wax baaxul de mun la waaye lii lii lii du dara lii yàlla du ci topp kenn baa nga gis kuy def dara nga ne ko sëñ bi bàyyi li ngay def ragalal yàlla mun la waaye lii yàlla du ci topp kenn ak lii lu ndaw li dong fekk déedéet lu ndaw ndaw yàlla mu ni fa man yaamal misqaala darratin xayran yara fépp suuf lu ko gën a ndaw darra darra fépp suuf yàlla mu ni ku ko def ci aw yiw daañ ko bind ci téere bi waaye ku ko def ci ñaaw téefit daañ ko bind ci téere bi yowmal qiyaam nga fekk ko fa mu toog yàlla mu ni maa yalfidu min qawlin maa yalfidu min qawlin benn kàddu gu ndawa ndawa lu tuuti tuuti tuuti boo wax malaaka mi dana ko bind illa ladayhi raqibun atid lu mu tuuti tuuti tuuti tuuti tuuti lu mu tuuti tuuti danga ko bind yàlla mu ne illa ahsaha lu dul ne takk naa ko cib téere mi ngi nii saxiratan wala kabiratan illa ahsaha lu mu ndaw ndaw ndaw ndaw ak lu mu rëy rëy rëy nu mu mën a toll lépp ngi nii ci téere bi am yaa def mu ngoog xam nga yenn saa yi école tëj xale yi di réclamer waaw li ngeen ma defal sama bulletin bi nekku ci ñu vérifié xool ne ah wax nga dëgg kañ ko dindi defaat ci leneen yenn saa nga dem SDE waaw li nga ma defal facture bi du noonu ñu xool xool ah wax nga dëgg daa defar defaraat wala Senelec li ngeen ma defal sama facture daa ëpp ñu xool xool ne ah wax nga dëgg wala réseau réseau yi téléphoné waaye borom bi tabaaraka wa taala amul li nga ma defal ëpp na amul manqué na lépp léppay tolloo ci kanamu allahu subhanahu wa taala lépp fay fay nekk lépp moo tax yàlla mu ne wa wajadu danañu fekk keroog. maa amilu la jëfoon lépp xaadiran muy teew lépp keroog dana teew ci kanam suñu borom tabaraka wa taala lépp lu waay defoon lu wax ci lu baax mbaa ci lu bon day teew lu jëfoon ci lu baax mbaa ci lu bon day teew lam tooñoon lam lépp lu mu mas a def ci adduna léppay teew keroog wa wajadu ma amilu xaadiran yàlla mu ni walaa yazlimu du tooñ rabbuka sa borom ahadan kenn yàlla du tooñ kenn ëppal fii du mànkil fii du yokkal kii du wàññil kii borom bi keroog kumaandu la wa wa nadau mawazin al qista li yawm al qiyaama nee na keroog yawm al qiyaama danañu teg man ndax maanaam nattukaay yi nga xam ne dafa maandu wala yazlimu rabbuka ahadan keroog sa borom tooñ kenn léppay tolloo lépp lañu ñu natt ba mu maandu te sëkk kon bokkum jullit loolu mooy li nga xam ni publié woon nañ ko te mbokk mi jàngoon ko ay aaya yoo xam ni bariwul waaye nag yu mat a càmbar la yu mat a bàyyi xel la lool maa ngi leen di dénk ji dénk sama bopp mooy lépp lu ñu publié ci internet bi Facebook wala YouTube wala TikTok wala bépp barab boo xam ne la fa ay publié ñu gis ko maa ngi leen di dénk lu ñu fay dugal na nekk luy jariñ doomu aadama yi tam bañ a doon luy lor mbokkum jullit na doon luy jàngale na doon luy jariñ doon luy fàttali na doon loo xam ni bés boo faatoo mu des fi di la jariñ fekk la sa biir bàmmeel waaye bu ñu publier mukk loo xam ne day lor wala mu yàq ndax ñu faatu ëllëg ba ko ci ëdduna muy dox mission am wallahi lazim même boo dugaloon ay saaga ci internet nga faatu saaga yaa ngay daw di dem di ko dugal sa contract yàlla nañ ci yàlla musal nga dugal fa lu baax am njàngale luy jariñ doomu aadama yi ci wàllu wér gi yaram wala wàllum njàng seen xam-xam seen diine luy jariñ da nga faatu bàyyi ko ci internet bi muy daw di jariñ ay nit mu di la fekk sa biir bàmmeel mbokkum jullit kon maa ngi dénk dénk sama bopp lu ñuy publier ci Facebook ak fu mu mën a doon na nekk aw yiw nekk lu baax nekk lu jariñ te ñu wattandiku di publier loo xam ne day lor baa muy jural nit ki bàkkaar ndax lu mu ca def ci ñaaw téef dana fekk sa biir bàmmeel mbokkum jullit kon yàlla nañu yàlla dimbalil boppam keroog yowmal qiyaam suñ téere buñ ko ubbi yàlla nañ fa fekk ay yiw yu baree bare baree baree baree baree bari yàlla fa fekk ay tudd yàlla yu baree baree baree baree bari yàlla nañ fa fekk yàlla jéggal nañu suñu bàkkaar yépp yàlla nañ fa fekk ngërmandey borom bi ak yërmandeem ñeel ñu ñeel mboolem jullit wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wassalaamu alaykum wa rahmatullah